gan gi Seydi sama ni ko ana waxee ñu koy gërëm euh, ñu lay dalal ak jàmm Seydi sama njiital Amnesty International Sénégal am mbégte euh, am la ci matinale Rewmi FM tey ni ki gan waaw maa ngi kontaan ci invitation bi di nuyu seen auditeurs yëpp ci ci bitim réew. Mhm. jërëjëf alors ñu tàmbaleeg euh, xëy na li réew mi yëpp di xalaat jamono ji àtteb aji Sarr Ousmane Sonko layo bi ëllëg la waaye tey jii dafa mel ni lii xeeñ neexul ndax euh, démb Ziguinchor euh, gis nañu ni ñu bari ci ay militantu usmaan Sonko ca buntu këram lañu fanaan lu jiitu démb sax ay njiitu yeew itam dem fa ndax dañoo njortu ne dañu koo bëgg jàpp dafa war a ñëw ci greffe bi tey wane ni mi ngi fii lu ko mooy ñu njortu ne dañ koy teg nii ca Ziguinchor ndaw yi euh, tàmbali nañoo baare mbedd ya ñuy wax itam ne kër Serigne Mbaye Thiam fii ci Liberté 6 euh, attaqué nañu ko ak ay cocktail molotov ba taal otoom euh, loolu yëpp Seydi Gassama bu dajee mel ni fitna mooy xeeñ ci réew mi lan ngay digal Ousmane Sonko ak ñi ngànk wàllum kaaraange tey. waaw xam nga mm, réew mi dafa toll ci situation boo xam ne. Euh, tey képp koo xam ne rek euh, doomu réew mi doomu réew mi nga wala bëgg nga réew mi rek euh, war nga mun a war nga tiit parce que depuis léegi lu ko ñaari at lépp li nga xam ne mooy waxtaan ci biir réew mi mooy mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko te mbir moomu defe naa ni dara kumpu ci Sénégal yi ndax ci mbirum viol boobu Hmm? lépp li nga xam ne xew na keroog ci euh, ci biir euh, ci biir ci biir Sweet Beauté ak li xew gendarmerie ak li xew ci cabinet d'instruction n'est-ce pas mu ci place publique bi maanaam sénégalais xam nañ ko mu ngi ci réseaux sociaux yi mu ci journaux yi ñëpp xam nañ ko. Euh, moo taxu d'ailleurs Kadir Boy mi nga xam ne ñu bëri ñu fi wax tey ne ay juriste lañu ci plateau télé di wax moom moo leen jàngal nee na mbir mi waroon jóge ci brigade gendarmerie fa la waroon yem. Hmm. n'est-ce pas malheureusement euh, jóge na ci brigade gendarmerie euh, dem ci tribunal euh, mu nekk événement boo xam ne jot na fi jël bakkanu fukki Sénégal ak ñeent. Hmm. te ba tey kenn xamagul fan la mun yóbbu réew mi li ma mun wax rek mooy Ousmane Sonko su dee mën na ma déglul dam ko wax na ñëw comparaître ndax. Euh, mbir moo xam ne euh, askan wi parce que atte bi nag ci tur askan wi lañ koy atte waaw su askan bi xam na lan moo xew yow mi nga xam ne yow la tuumal waroo ragal ñëw taxaw tribunal nga wax parce que askan wi n'est-ce pas kenn mënul décider contre la volonté euh, du peuple sénégalais moo tax je pense que procès bi su am n'est-ce pas dafa war a ñëw taxaw nest pas défendre boppam ah, xëy na dina ci dégg li ko waaye loolu yëpp bokk na ci parcours homme politique parcours homme politique te parcours homme politique moom soo amee détermination kenn mun la tere egg fi nga xam ne fa nga bëgg egg gis nañ ko ak Ablaye Wade mhm. ah, su dee doole état rek moo munoon tere nit bu nekk président Ablaye du mu sa nekk président kon euh, gis nañu la Brésil tamit li <laughs> moom jàpp nañ ko dañ ñu ko ci biir kaso mhm. euh, dañ destitué ki nga xam ne moom moo ko wute woon waaye tey moom moo foofu kon maa ngi koy ñaan nañu comparaître eh. autant kenn waxoon dara ci affaire Mame Mbaye Niang parce que euh, affaire diffamation la extra euh, autant pour cette affaire Adji Sarr lépp loo xam ne xew na ci dossier bi Sénégal yi xam nañ ko. waaw hmm. ah, y compris certificat médical mi nga xam ne ci réew boo dem ci biir àdduna certificat médical moom mooy firnde ne n'est-ce pas siif nañu jigéen wala siif ñu certificat bi moo koy def ah fii ci Sénégal moom lañ sukkandiku ci affaire yu bëri. mais mm. eh, affaire Kaliphone Sarr affaire Sitor Ndour. certificat médical la ñu basé wu pour naan dañ violé wala violé wuñu mm. kon bugg fi andee test ADN pour une personne spéciale je crois que loolu xel mënu ko naw en tout cas docteur bi euh, dina taxaw dina dina seede euh, askan wi dinañ ko dëgg et vraiment je pense que encore une fois. Euh, intérêt mooy mu ñëw comparaître te maa ngi ñaan les forces de sécurité nañu ànd ak daal nañu ànd daal parce que encore une fois li li ñu wone woon ci mars deux mille deux deux mille quatorze deux mille vingt et un ko gis ci biir Sénégal n'est-ce pas au mois de ci ci ci ci fan yi. Hmm. ban taxawaay la amnistie ak ñu mel ni moom nar a am ci procès bi ñu jàpp ubbi ëllëg. waaw man d' abord su <laughs> dee mën na ma dégg da nga ko daan nañu comparer. jour waaye moom mi ngi ci campagne désobéissance civile loolu de mooy coow même su dee même su dee dafa yaakaar ne institution yi dañ leen di utiliser contre lui mais nañu ñu comparer. Euh, jotoon naa ko wax ci émission du ma dellu ci gannaaw ci sama mm. position boobu nañu euh, comparaître et voilà ndax bu ñëwul da leen di may nuñ ko jàppee. ñoon ñoon dina euh, ñoon bu ñëwul daf leen di may ñu mën koo jàpp. voilà justement justement voilà wax ma sa jàpp bi sax mais mm. bon Euh, lu mu a ànd ci ay. instabilité euh, loolu lépp dañ koy jël teg ko ci kawam. Mm. parce que déjà portrait bi nga xam ne moom la ñu jéem a jaay ci affaire yi Ousmane Sonko mooy euh, nit ku violent la ko bugg a deret la et kon loolu war a ko mbay ñi nga xam ne ce sont ses adversaires ni ñëw comparaître man vraiment appel boobu lay lancé ñëw comparaître voilà ñun dinañ nekk au tribunal dinañ xool procès bi dañ ko suivre. Mm. àdduna bi yëpp nañ suivre procès bi ak lépp ñu jot a li ñu ci a xam. Mm. nañ suivre procès bi. waaw euh, mais nag am na droit ne man sama xeet dafa tey ci justice parce que gis nañu ci ban atte la jógee ci atte bi mu jógee naka lañuy ñu conduire boobu changement bi ñuy def ci tribunal bi eh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ko doon toog di koy chargé ñooñu jël leen def leen ci ay attekat eh, même su dee keroog toogul euh, président wu tribunal même su dee moom toogul pour atte ko mais moom mooy président cour d'appel bu bu bu Dakar te dëgg am na kenn ci surtout yi mu amoon fële ci ci ci ci tribunal première instance surtout yooyu toog na keroog ci àtte bi hmm. eh, loolu ak vitesse bi nga xam ne ci la ñu conduire àtte bi eh, Sénégal léegi xam nga dañu naan le temps de la justice n'est pas le temps des médias ou le temps de la politique hmm. waaye lii mu ne wax mooy temps justice ak ci ci ci politicien ñu bëgg invalider hmm. ak temps justice pour les citoyens ordinaires ak ñenn ñi du benn su dee politicien la boo xam bëgg nañ ko invalider justice nu muy doxee malaw sa moo ko gën a gaaw vitesse. Hmm. gis nañ ko ci affaire Khalifa Sall ni ñu ko atte gis nañ ko dégg nañ procureur ndaw nee na ci atte Karim Wade dañ ko ne ministre moo ko ne ko président nee na dafa bëgg nga atte Karim avant élection locale yi nga moo war a am procureur ndaw wax na ko fii n'est-ce pas kon taw justice Sénégal nu muy doxalee su dee politicien la opposition ak nu mu doxalee ci ñeneen cas du te loolu yëpp. te tax ba xelu citoyen yi tey eh, même su dee nit ñi wane ñu seen naxar mais seen biir xel y compris ñi nekk ak moom y compris moom ci boppam. Mm. xam na ne doxalin bi du doxalin boo xam ne dina andi daal dina tax ba Sénégal yi wóolu kër attekaay yi. kër mm. attekaay yi ci société démocratique war nañ ko wóolu absolument parce que moom moo war a nekk fii di atte nit ñi eh, problème su amee mu atte nit ñi waaw waaye su dee dem nañu ba kenn woolu wóolutu leen. boobaa violence rek moo mun a juddu ci effectivement alors violence juddu ca Ngor boobaak léegi am nay ay bës coowal suuf moo ko waral ay bakkan rot li mujjee génn ci xibaar sax mooy cet euh, cas de genre de mort bu Adja jàlloo kenn ci ñu ñàkk bakkanam euh, expertise beneen ñu di ko def ca France loola yëpp Amnesty euh, ban xibaar la ci am ak ban taxawaay. waaw ñu dem nañu Ngor bi ñuy demee Ngor nag eh, daje nañu ak eh, eh, ay kilifa ci biir Ngor daje nañ ak maire bi daje nañ ak ñi nga xam ne ñoom ñu nekk mouvement associatif lu mën a wax mooy li xew Ngor dafay wane ban genre état la état boo xam ne lépp lu muy def rek ci kaw doole la koy teg. xam nga am na benn baat boo xam ne dañuy faral di koy répété force c'est à a loi waaye baat boobu dañu xamul lu mu teg ci baat boobu waxu waxuñu ne da nga ko utiliser pour di. jaay doole jël waxtaan teg ko fële jël diisoo teg ko fële lu ñëw rek man maay état damay jaay sama doole parce que terrain boobu état waroon warul woon nekk fii di ko xëccu n'est-ce pas ak askan bi rek Ngor gendarmerie waru waru waru fay nekk di ko xëccu ak askan Ngor parce que Ngor mooy commune boo xam ne collège sax amu fa ba ñuy wax lycée maanaam képp koo xam ne Ngor nga juddu su dee am nga entrée en sixième war nga jóge Ngor dem def étude secondaire su dee sa papa mënul la fayal. ci école privée yi fa nekk école privée dañu si dañoo seer n'est-ce pas il faut nga jóge Ngor dem jàngi Yoff wala nga dem jàngi Wakaam loolu yëpp dafa diis ci askanu Ngor daa it mool lañu te mool xam nañu ne tey mool yi amatuñu dara parce que géej gi amatu jën ndax bateau yi nga xam ne état jox na ne ay licence n'est-ce pas lépp léegi ci biir géej gi raxas nañ ko te mool yi amatuñu dara loolu dafa diis ñoom moo tax dañuy bugg lycée ak collège foofu ci terrain boobu te terrain boobu rek moo rëy pour mun a accueillir lycée ak collège état nag mu ngi leen di proposer yeneen terrain ci zone aéroport d'après li fa dëkk mais brigade de gendarmerie bu ñu ko fële zone aéroport ñu bàyyi askanu Ngor ñu mën a am lycée ak collège ci terrain boobu ndax terrain boobu jam Abdou Diouf n'est-ce pas Abdou Diouf moo ko exproprié woon ndax suñu suñu bàyyi Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moom moomoon terrain bi eh, ñu exproprié ko euh, jox ko ndàmpaay jël terrain bi pour yokk ci lotissement Ngor mais terrain boobu waa Ngor ñoo ko moom parce que terrain boo xam ne destination mooy yokk lotissement Ngor war nañ ko mën a jox waa Ngor ñu def ci infrastructure bu mel ni lycée hmm. ndax bu ñu tax ba conflit di am diggante sécurité maanaam kaaraange ak jàngale jàngale moo war toujours nekk ci kanam parce que jàngale sa askan su dee da nga leen formé ñu mën a seen bopp criminalité dafay daal di wàññeeku. Hmm. kon amul benn nguur boo xam ne n'est-ce pas ci biir àdduna boo xam ne dina def en euh, mettre en conflit maanaam kaaraange ak éducation. ak jàngale ak forme say say ndaw. Hmm. former ak jàngale moo war a nekk priorité. kon encore une fois ñu ngi lancer un appel à Macky Sall n'est-ce pas arbitrage bu mu def dafa arangé wul n'est-ce pas waa waa Ngor. Hmm. n'est-ce il faut que mu wax ak au commandant de la gendarmerie mu dem def brigade am ci terrain yi nekk aéroport yi nga xam ne fa la bëgg mobiliser bi parce que foofu déjà dafa sori ak village traditionnel bu Ngor. Hmm. mu bàyyi waa ñu tabax seen lycée ak seen collège. ci bërëb boobu mi nga xam ne bërëb boobu la bëgg tey jox kut ku kut waa gendarmerie nationale. Mm. léegi nag euh, xam nañu lan mu ci juddu ah ay jàmmarloo jàmmarloo yu doy waar parce que toujours malheureusement saa yu takkadee na jàmmarloo ak askan wi tey mel ne ñu ngi xeex contre seen i noonu. parce que Ngor ñëpp xam nañu village traditionnel la euh, tali yi ni mu mel dëkkuwaay nu mu xate mm. nga dugg ci biir di da ak xale yi di door a xale yi di sànni ay lacrymogène loolu looraange rek la mën a andi looraange boobu nag ah, njëkk ni seen bakkan l'enquête yi c'est en cours waa li mën a xalaat mooy Adja Diallo ay procédure ñoo ko rey procédure la kan moo ko tiire bi mu dugg ci biir di ko rey loolu yoon war na ko setal te procureur de la république bu Dakar ni mu gaaw gaawootu def communiqué ne dina traqué dina jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoree luy ndong parce que manifestant yi lay tuumal mm. noonu la waroon def communiqué bi ne n'est-ce pas mu exprimer Euh, sa volonté pour jàpp ñi nga xam ne ñoom ñoo rey xale bu ndaw bi nga xam ne 15 ans rek la am njabootam am yaakaar ci moom n'est-ce pas mu dee ci événement yi. waaye boobu ministre de l'intérieur balaa autopsie sax uh-huh. yaakaar ne manifestation ñoo ko rey oui dañu mobiliser ay moyens pour jàpp ki nga xam ne moom moo ko rey. kii bo dañuy ñi ñi ni yaakaar ne xëy na alkaati ñoo ko rey. Hmm. mu commencé di tene léegi loolu askan mënatu ko nag. dégg nañu ministre fukki doomu Sénégal ak ñeen ñàkk nañu seen bakkan ba tey juste su Sénégal ñu wax kan moo rey kenn ci ñoom kan moo rey kenn ci ñoom loolu n'est-ce pas ñu continuer di koy nangu parce que day wane ni que n'est-ce pas état moom mu paree jox impunité ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef yooyu. loolu hmm. moo tax bi askan wi tey dem na ba wóortuñu justice parce que justice boo xam ne euh, dafay dafay féete boor justice boobu askan mënu mënatu ko mënatu ñàkk daan yooyu lan lañu mën a def ba mu jóg fii ndax itam ñi faatu bari nañ ñi amee gaañu gaañu souvent aussi dañ leen di fàtte mais bari na ci ñoo xam ne fa la ñuy jaaree amee ay laago euh, seen ngiruk dund nan la ñuy def ba loola soppeeku Seydi Gassama waaw je pense qu'il faut que ñu citoyens sénégalais ñu xam bu nekk Sénégal tey bi nga xam ne moom euh, ci biir mi mooy ñàkk indépendance bi nga xam ne euh, justice Sénégal ñàkk na ko te ñàkk indépendance boobu ñi nga xam ne ñoom ñoo boot Macky Sall yóbbu ko au pouvoir te moom ci boppam mu dem signé charte bi nga xam ne ñoom dañ ko adopté woon maanaam assise nationale ñoom Moustapha Niass dem seer Ousmane Tanor Dieng ak ñeneen ak ñeneen ñooñu dañu toogoon def diagnostic ni docteur di xoolee malaat noonu la ñu xoolee justice Sénégal hmm. ñu proposé ay réformes Macky Sall dem digg fi ñaar tuur dem signé waa bi mu toogee appliqué wu dara mu wëlbatiku créer moom ci boppam beneen commission de réforme des institutions seytu saytu institution réew mi wax ban jàngoro ma nekk ci justice. Hmm. Macky Sall wëlbatiku réforme yooyu bépp xam ne amoon na solo n'est-ce ci wàllu euh, maanaam indépendance su kër attaquant yi fexe ba Sénégal yi wóolu ko yooyu yëpp appliqué ko tax na ba tey fi ñu nekkoon avant 2012 fa la ñu nekk ba tey justice boo xam ne kenn wóolu ko parce que loxo président moo ma nekk ci kaw justice bi. président mooy président conseil supérieur de la magistrature moom mooy buum di buum mi président de la république nest pas moom mooy tamit nekk ci ci ci ci boppu parquet maanaam te li mu sant procureur ku moo procureur te Sénégal demal jàpp rek procureur jàpp na dugal ci biir kaso. Hmm. loolu mooy li xew tey ci biir Sénégal moo tax damay wax encore une fois que citoyen li ñu war a mobiliser mooy fexe ba réforme yi war am ci justice mu am. ah dégg naa ñuy naan daayira bëgguñu syndicat mais ñun dinañu xeex bi ñu am syndicat hmm. ñi nga xam ci biir médecine bëgg nañu am syndicat ñun dinañu xeex bi ñu am droit pour créer seen syndicat te dara lañ ci fekk loolu nañ ko def parce que loolu dafa bokk li nga xam ne moom moo jox justice indépendance parce que liggéeykat bi su dee mun a xeexal boppam boobu non seulement dina xeex pour que a mun a dina xeex lépp loo xam ne dina tax askan wi di ko xool ak bët yoo xam ne maanaam ay bëtu naaw la du doon ay bët yoo xam ne dañ ko soupçonné que dafa nekk n'est-ce pas sous euh, évidemment euh, le le le joug de du pouvoir exécutif. jërëjëf Seydi Gassama amoon nañu mbégte dalal la waxtu wi dab nañu lool euh, ñu ngi lay gërëm yow yaay directeur exécutif bu Amnesty nationale waaw di ñaan daal rek encore une fois di mm. lancer un appel mm. aux gens à Ziguinchor nañu ànd ak daal mm. di lancer encore une fois un appel Ousmane Sonko dañoo ñoo comparaître tranquillement askan wi nañ fi rek di koy xool ñun société civile dañu dem tribunal di koy xool ñun xam nañu lan mooy charte yi nga xam ne mooy mooy tax ñu ne atte bi atte bi jaar na yoon. Mm. te dinañu nekk tribunal di ko suivre te su dee jaarul yoon nañu ko wax ci kaw bi askan wi dégg ko. ñëpp dégg wax ko tamit bi adduna bi dégg ko. jërëjëf Seydi Gassama euh, ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la ñaanal yendoo jàmm a baax di la ñaanal yendoo jàmm a baax di la.